waaw oh, salaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk yi leen di ziar bu baax di sant Cheikh ci ci ci leeral yi ala kulli xaal ma lu may wax daal mooy yonent bi salaa sallam waxoon idaa lam tastaxi fas na ma bu fekkee yow doo rus dafa lu bu fekkee yow rusoo di sosal yàlla ak yonentaam rusoo di saaga ay nit dafa lu la neex rawatina nag ci magum jëmm boo xam ni ña ngay saaga mën nga leen jur mën nga leen bàyyi ndax jàngal nga seeni moroom ndax seeni moroom ba ñuy nekk xale jàngal nga leen comme ça di dire que ñooñu mën nga leen jur nga nekk di dàgg sant ak ñoom au nga tontu leen xam-xam mais di saaga. mel ni kuy wax ak sa borom loolu moom yaakaar naa doyadi ak euh, nitadi fa la yem euh, li may wax rek mooy euh, lu may indi lu may yokk ci li nga xam ne moom la Cheikh Diawara indi xam nga li wane ñi ay juhaal lañ xamuñu dara naam yasaar ba xamuñu surtout xam-xamu xadis moom xamuñu ko loolu dañ ko tële loolu nag lu yàgg la ñàkk xam bi ñu ñàkk xam li nga xam ne moom mooy xadis mu nee na ibnu omar wax na ci kenn euh, ibnu xajar boog xaw ma athaqafi fi wahab xaw ma kan ba ne dafa jaxasoo fi axirihi ci mujjantalu dundam tayib ki nga xam dafa jaxasoo ci mujjantalu dundam ba xamatul lu muy riwaay jaxase isnaad bi mun na ko jël yóbbu ko xadis bi mu jaxasoo du xamati lu mu bindoon wala lu mu yoroon ci ay càllale wala ay téeram jaxasoo kooku xadiisam bi nga xam ni da koo riwaaya avant muy jaxasoo xadis boobu dañ koy dañ koy nangu xadis bi nga xam ne da koo riwaaya nag ci jamono bi nga xamante ni si la jaxasoo xadis boobu la ñuy dellu te xadis boobu duñ ko delloo mutlaqan bu fekkee gis nañ yeneen shawaahid dañ koy jël comme ñoom mooy woon ni ñoom ñi ay juhaal lañ xam naa dafa dem ci taqribu tadhib bu ibnu xajar wala tahdibu tahdib mu dem xool tarjama waa ji rek te ibnu xajar buy tarjama day wax waa ji day tënk waa ji bis ba mu judd ak na mu meloon ak riwaayam avant muy jaxasoo mën la ci fin bi nag dafa jaxasoo woon comme xamul sax lu muy wax lan la xadiisu ku jaxasoo koo xamante ni dañ naan ixtarata fi axirihi xadiisu kooku avant moom muy jaxasoo xadiis boobu loolu lu mu riwaay dañ koy jël li nga riwaay ginnaaw li mu riwaay ginnaaw bi aw jamono bi nga xam dafa jaxasoo kenn du ko jël moom xaaligé moom loolu sax xamu ko jaahil la xamul dara euh, comme lu wax rek keroog ci athar imaam Malik mu ne athar moom mu ne euh, taarixu tashri xoolal loolu xam nga loolu mooy réer mooy lu Lamine Sall defoon rek àllaqahul Buxaari mu ne Buxaari contribué na wala commentaire na parce que jànguñu xam-xam bi yasaar jànguñu xam-xam bi xamuñu xam-xam bi yes li ma bëgg a indi rek mooy ci li mu wax ci inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu ba mu jeex léegi wa kullu dalaalatin fi naar jooju waxaab yi di ñaanalale di coow di wax lu dul jeex dama bëgg a leeral ni wa kullu dalaalatin fi naar ab ziyada la bo xam ne masaa ko indi ci ben ci riwaya riwaya di muy nek li ci hadith di nek dim ko dugal way ziyada bi borom xam-xam yi nangu wuy ko xam nak ñen nak ñu bok ci waxaat bi yu ñu ngi gor góorgóorlu di ko layal way dal manam bo kullu dalalatin fi naar ahadis bi bo ci ca do ko ci fekk de gaay ñoo tam buñ de dee xutba rek tambulé ko wax ko non loolu seen ñoy bopp la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بعد بابو كيف مدد من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كذا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له lu neex laay لن تخد البعض لاجي سلسله بينا bi nga xam ni وكل ضلالة في النار مم ni wa ci benn riwaaya boo xam ni nasaay moo ko indi silsila ba boo ko toppee da nga cee fekk abdulwahab ak saqafi qaala alxaafid ibnu xajar nee na kooku siqa la waaye nag taxayara qabla mawtihi bi salaasi sinin avant muy dee ñetti atam yu mujj dafa soppi ko dafa changé complètement kenn jëlatul ay waxam kenn du ko déglooti comme que lii am na ci moom lii xayta laaj mooy def ci attention comme comme moom silsile bi dong ñoo ko nettali te ñi ko nettali ñu ngi nii ay marbaa lañ teg ko de côté moo ci jaadu bokk na ci silsile ba ko ñu wax bu ibnu xaalid ba tey xaafiz ibnu xajar nee na fiqatun sabtun lakinahu tagayara qalilan bi axiratin ci mujjub dundam moom it am na changement bu am ci moom بوبا دنجو خم اكزاكتومون كان لا نيت لي وار وقت ولا جوندي مي عبد العزيز ابن محمد ابن حجر نينا صدوق كان يحدث من كتب غيره في لي باخ كتب دغلا مي lu tax ma wàccee xadis bii nii mooy moom Xaali Gueye dafa ne ay inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu yooyu nga xam ne ñun ñoo ko teg moom loolu la wax luy gën a wër luy gën a luy gën a wone ab réeram nee na loolu ñoo ko teg te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom lañ ko jëlee waaye nag nit moom sab xam-xam bu néewee nga bëgg jàngee ci ay tontu maanaam ci tontu yi ñoom yi def nii lañ bëgg a jàngee lañ bëgg amee xam-xam moo tax à chaque fois li ngay wax day nekk ay waxu neen lii nii xadis la inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu nee na ñun ñoo ko teg ahlu na ñoo ko teg wala boog ñoom ñuy tuddee waxaab wahaabiya yaa xaali gay xadis bi loolu mu ngi ci muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadisu ibnu abbas dimaan ibnu thaalaba dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa di ko laaj ay mbir ci wàllu li nga xam ne moom mooy mocc ba mu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi di ko tontu yonente ba mu koy tontu dafa ubbee inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihi llah fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd déggoon naa keneen ci ñoom muy chiite boobu booy xawsa moom mu ne amma baad ñun ñoo ko créé ak yii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci xutba bi dafa wax ne amma baad ba mu waxee loolu balaa buy jeexal waaji ci boppam ne ko aid alayya kalimatika haula mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam baat yi nga tudd nii dama bëgg nga répété ko ci man yonte bi salaa sallam fa aadahunna alayhi rasulullah ibnu abbas mu ne yonte bi salaa sallam daal di koy répéteel moo yooyu waa ji ne ko laqad samitu qawlal kahana mu ne man kat dégg naa waxu buxaabakat yi buxaaba yi وقول السحرة أنجي بركتي وقول الشعراء أك ويكتي وكادو يملني فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء كاد يملني ده مسو مكودك مسو مكودك من هاتي يدك تجي خمتل أبايك على على الإسلام منكو ne ko jox ma sa loxo ma daag lay jaale ci dugg ci lislaam comme damaan ibnu Saalaba muy ngi duggee l'islam ci kàddu yi xaali gay naan ñu ñoo ko créé ci la duggee l'islam subhaanallah mbal ibnu Taymiya mu ne hadihi alxutba sababat islaama mushrik fi islaami mushrik mu ne xutba bii de sabablu na ci islaamub ki nga xam ne bokkaalekat la muy damaan lii la xaali gay ne ñun ñoo ko créé xutba baa ngi ni xadis baa ngi ci muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawul ci kaw minbar de waaye ab tontu bu mu doon tontu ab laaj buñ ko laaj mu ubbee inna alhamdulillah nee na nag ñun ñoo ko créé moom xaali gay nee na waxaab yi ñoo ko créé lay woon seen réer ak seen gàttub àlluwe ak seen ñàkk jàng lu gën a bon nag mooy mag bu dem ba âgé nag te xamoo dara te jàngoo te réer loolu moo gën a garaaw nag nekk nag di werante ak say doom yoo xam ne ñoo la ëpp xam-xam ñoo la sut kooku muskila la boo tax gis nga baat yi dafa boole ñetti tawxid yi tawxidul rububiya tawxidul uluhiya tawxidul asma wa sifaat inna alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu yi boo xoolee tawxidul uluhiya la dafa dimbali koo yàlla dafa dimbali koo yàlla tawxidul uluhiya من يهدي الله فلا مضل له دا ام توحيد الربوبيه من يهدي الله كو يالا جوبال لولو جيفو يالا لا توحيد الربوبيه لا ومن يضل فلا هادي لا غيسغا واشهد ان لا اله الا الله باتو يالا دا جيلي توحيد اسم الله دا جيلي توحيد الاسماء والصفات موتاخ واجي بونكو ديغي مو خامني لي لي توحيد لا مو دالي توب دوجو سي الاسلام لي نك لا خالي واخني لولو نيم نيوخا كراي day wane gën day gën a wane réer bi nga xam ne ñoom tasawuf suufiya réer nañ ko ak gàttañlu bu ñu gàttañlu si ci sàkku xam-xamu xadis ak réere ba ñu réere li nga xam ne moom mooy xadis wallahu alam waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh alpha ayakallah mbaa yaa ngi si jàmm bu baax alhamdulillah waa alpha xam nga boobu noonu saa bala ngay jëmu ak moom di wax ne ال ال الذي تغير مثلا dañuy xool ne est ce que ki ko riwaya qabla ki riwaya anhu qabla tagayurihi walla badahu bala ngay bala ngay dem ak moom ba foofu waa ji nekk si sanad bi nag mais waa ji dafa nekkul sa si sanad ma ne la moom dafa jël ay nit yoo xam ne bokkuñu si sanadu hadis boobu mu ne ñoom ñoo nekk si sanad bi maana huwa rakkaba sanadan ala hada wa jaala hada sanadu daifan li yudaifa al hadis fa hada kadibu sarix wallahi su fekkee ne moom moo ko tey kii suufiyanke sax war nañu dogo ak moom parce que ku am sañ-sañ di fen genre fen yi ni pour weddi hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu dafa xaaw a léegi nag moom loolu la def kon du ñu nekk fii sax di wérante ak moom saqaf yi boo noonu waaw est-ce que euh, mata taxayara wala kii nii loolu yëpp perte de temps la parce que saqaf boobu noonu sa nekkul si sanad bi nekkul si sanad bi ni muy riwaa ni muy tuddee foofu si ojoom boobu yëpp amul kenn si ñoom koo xam ne dafa nekk si sanad bi kon moom waxul dëgg wala ki nga xam ne moom la jëlee waxu jooju moom moo fen ñaar yëpp danger la wallahu al mustaan gis ngeen na ahadis yi athaar yi nga xam ne moom laa wàccalee nii jëlee ko sunna lil marwazi ñu ngi noonu masul ñeeku d' abord ibnu omar bnu xattaab ibnu masud xuzeyfat ibnu lyaman ibnu abbas ibnu omar ñoom ñépp di wax ne bidaa lu bon la amul lenn luy sax si lislaam athaar yangook kon ku ñëw dig la gëmloo ne di ne sahaba yi dañuy waxu bidaa sana da nga waxul lu am mais da nga xamul sa lu xew ay ni'matil bida bu fa nek li fa nek li borom xam-xami saxal ibnu taymiya ibnu hajar haytami ak ñu mel ñooñu loolu bida fi luxa la parce que mom lu mu indi sa du bidaa yonent bi alayhi moo ko njëkke def kon defa ko bàyyee parce que daa am lu muy ragal bo mu génne àdduna li mu ragal nekkatu fii kon Omar bun Xattaab dafa ñëw di taxawal loolu la ibnu Abdul bari wax te loolu moy lu wér képp ku wuute ak loolu dañ laa war a faju mai wéro wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala salaam wa non Cheikh Diawara loolu leer na loolu leeral nga ko moo tax laalu ma ci dama ko bëggoon indi sax moom lu muy bëggan ndëgër laa yow loolu bu amoon sax loolu bu amoon du tee ñu delloo xadis bi dañu xool waa ji ixtilaatam kañ la maanaam xadiis bi bii ba mu koy riwaaye avant ixtilaat la wala baadal ixtilaat loolu laa ko bëggoon a xamal dama ko bëggoon a wax ni maanaam foofu muy dellu sax du delluwaay du képp koo xam ne ixtilaata rek ñu ne kii ixtilaat ñu ne kii duñ jël xadiisam mais li nga wax fee dafa leer moo tax bëgguma fa laal dama ko bëggoon indi sax loolu sax du jëm maanaam dafa xamul dafa xamul xadiis bu xamoon xadiis du sukkandiku foofu ndax même Abdul Wahab al-Thaqafi bu nekkoon ci isnaad bi sax laa la wax comme ni mu ko waxee mu nekk koo xam ne dafa ixtilaat comme ni mu ko waxee loolu delloowul xadiisam. maanaam il faut ñu xool mais dama xamul xamal dama bëggoon wane rek moom xamul xadis xamul lu muy wax dafa dem ci tarjama tahdibu tahdib wala taqribu tahdib mu gis ibnu xajar tarjama rek mu ñëw rek mu mu soloo ko mais comme ni nga ko waxee noonu la maanaam ñu ngi noonu rek ay nit yi ña nga yàlla ñu ay nit yoon xamuñu dara dañuy sos rek di teg